jot nañu ndigal ci cheikh muntaha mbacke non koy ñaan mu yag lol te wer ñew ci rakam ja serigne cheikh mbacke mum serigne chaliw borom ngot borom ndal borom xaban borom njurul borom ndoka nong ngi fii nag tey toog ak soppe serigne touba ku xam bopam bëgg yoon wi defandar yoon wi serigne bamba gënal ko leppam muy mbokkum sëriñ bi waaye be ñor ko mu doon kenn ci sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacké waaye ndekete wëllëre ginnaaw lay féete sëriñ Moustapha mii ma toogal tey ci dëkkam bu tedd bi di Afiyé toog mu ànd ak ki bokkam njaboot gi wër ko lii taxoon sëriñ Saliou def la nam la defoon kon noo ngi fii ci tànki sëñ Moustapha Mbacké moom sëñ Abdoulaye Karam mu baax mi xam ngeen ni nag bu sëñ Moustapha moom bu yëkkatee kàddoom xel koo mu jub si xel koom bu ñuy wax jàmbaari xel koom jàmbaari xel koom ngi toog moo tax sëñ Moustapha le 23 moom le 21 def na ko fekk ca tool yi waaye nag ki yaakaar sëñ Saliou bëgg ko gëm ko sëñ Saliou tibb teg ca loxoom ba mu mën a dimbalee ba Sénégal boo ko tuddee dàkkantal ca sëñ Saliou mooy Cheikh Amar jàmbaari sëñ Saliou sëñ Cheikh jël ko def ko jëwriñ waaye sëñ Cheikh moo dis gor ku ne xam na ci Cheikh li mu jóge ak fi mu toll waaye Cheikh daaw ba muy ñëw te tool daf ni bu ma doon raami dem ca tool yi tey appel bii fii la war a toog ci sa wet waaye sëñ bee ko ñaan ni ko yebalal peex rek mu dem moo tax tey ma ñëw toowal fi Cheikh Amar darmanko yi soppe yi xarit yi wëllëri yi waa Ndar waa Ndakaaru waa Njaaréem Cheikh Amar bàyyiwul kenn ne ku mu lebal ku mu lebaloon ñëwal fay si ko ci sëñ Saaliw ne koo xam ne kii bëgg nga koo lebal te dana fay ndax sëriñ Saliou ne ñëwal leb si ko ci lebal si ko ci ngóob mi dana la fay ci doole yi sëriñ Cheikhum sëriñ Saliou moo tax Cheikh Amar ni bàyyiwul kenn bàyyiwul fenn bàyyiwul ñenn lépp lu mu am daal dana nekk ci ginnaaw sëriñ Moustapha ànd ak mbooloo mi doon jëwriñ dem ca tool ya ne mosu fa am ñaari fan ne Abdoulaye ma ne ko Mbakke mun ma waxal ma mbooloo mi na ma ko daa defee rek laa ko defee wate yi yemb na fay naa ko mbokk yi yemb na fay naa ko ku soxla wata ak foo ko bëggee laaj ko Cheikh Amar dana la ko jox waaye lépp nag mi ngi ci loxol gor sii Serigne Moustapha mii nga xam ni digganteem ak Cheikh Amar ajumaa ko gaaw la benn bis tox fi woote bii nga xam ni Serigne Moustapha la karam nuy ñaan nga yàgg fi te wér seriñ bi nee na la 21 moom mi Serigne bi tànn ni ko jàppal bés bi wooteel ma ko dana fa dem taalibeem ba soppeem ba kama waxan ni ma xaadim manaam mu ni ma doo ma fekk ci néeg yu bari ci ndakaaru waaye bu sëñ Moustapha ñëwee ndakaaru man Cheikh Amar lu ma jàpp danaa ko bàyyi ñëw sëriñ baa ngi nii maa ngi nii di jëwriñam di jëwriñu sëriñ Cheikh ñoom ñaar ñu fas yéene faa nekk jëfi sëriñ Moustapha la karam digganteem ak taalibe yi digganteem ak bokk yi digganteem ak jaami yàlla yi digganteem ak jullit yi na ci xel koom rawatina jëfi Cheikh Amar ci kër sëñ Bamba ak Cheikh Saliou Mbacké kon ñu ngi woo Sénégal gépp góor ak jigéen mag ak ndaw di woo képp koo xam ne ak jullit nga rawatina njabootu maam Serigne Touba Khadim Rasoul nun ñëpp nañu àndandoo la 21 nañu fekk fa Serigne Serigne Moustapha la Karam ca xel koom ci liggéey bii nga xam ni ku ci bokk da ngaa war a fay ndax bokk ci lu ñuy defal sëñ Bamba te mu jëm ci yàlla sunu borom ku ci sëñ bi boole da nga ko war a fay. ndax seigne Maodo Aminta sama sang ba daf ma wax ni ma khadim maniko fal muni ma ku ñuy jeex seuf euleuk da ngay jaxase kuñ dul jeex seigne Bamba lañ dul jeex daraam kon seigne mustapha la karam yalla nga fi yag tebir ko ci ndigal waccat ci suñu bop di ndigal lu baye ko ci seigne mustapha abdul Akram Mbacké seigne mustapha nanguna warna war nangu ndigal waye itam warna naa joxe ndigal nam ko daan joxe ndax yaakar na wote bi du gulet ci mom dañuy faral di wax ne yoonu sëriñ Touba moo amul tànki ginnaaw tànki kanam rek la am waaye amul menum at moo xam ne sëriñ Moustapha wootewul woote bu mel nii ci xel koom tey nag li tax mu alaa dawme dafa jot ndigal te sëñ mustafa du fooye ndigal looloo waral tey mbir mi doxe nii mu doxe tey waaye ñun ginnaaw sëriñ Moustapha angaaru dax la te dañ ko daa faral di wax ne noo ci laale noona nga cay miine te at mu jot ñu am ñu ñu doon bokkal liggéey bi motax lu ndigal war war ci kawam ñu jotaat ndigal nañ ko daan jotee jotli ko ñan ko daan jotli lolo waral tay, fep fo xamne ne maire nek na fi ci département de Djourbel muy fukki maire yi ak ñaar ñom ñep jot nañ ndigal nangul ko sëriñ bi waye nak ci man mi di maireu Toki ak maireu chahar di Macoro ak maireu Patar di Samba Diouf ak délégation bi représenté maire Trembone waaye itam ci biir département bu Tivaouane maire Serif Lo ñu ngi koy jot li nuyoo ndax moom itam jot na ndigal li toxalam a ngi ci liggéey bi maire Pambal naka noonu maire Taïba Ndiaye noonu maire Noto noonu maire Thiénaba moom itam jot na ndigal maire Meewaan ñoom ñëpp sëriñ baa ngi leen di delloo nuyoo te di leen sant di leen gërëm ci taxawaay bi ak yëg bi waaye itam di leen wax ni jawrin boo xamante ne jawrinu sëriñ Touba la at mu jot fu sëriñ bi nekk ci liggéey bi mu bokk ko ak moom muy meeru Touba di sëriñ Abdoul Ahad Ka moom itam ñu ngi koy jot li nuyoo sëriñ bi waaye di ko wax itam ne liggéey baa ngi noonu waaye ci noonu rek ñu dal xamal ne liggéey bii dafa yemul ci maire yi kese ndax administration commandement territorial ñu tàmbalee ko ci gouverneur de la région ñëw ci préfet département Ibrahima Fall sous préfet bu Ndindi ak sous préfet bu Ndulo ñoom ñëpp at mu jot sëñ Moustapha day ànd ak ñoom liggéey bi waaye itam soo ñëwee ci wàllu wér yaram li jële ci wàllu région médicale ak district sanitaire ak ñi nga xamante ne mooy waa hydraulique yore wàllu ndox mi sëriñ bi nee na liggéey bi nañ ko daan bokke noonu la leen ci wooye ndax li ma wax léegi rek seriñ bi angaaru dax la nu ci waay laale noonu la cay nii ne looloo tax ñun ñu bëgg ñëpp rek gis ci seen bopp kon ñu ngi woo ñëpp di woo conseil yi di woo chef de village yi di woo ñi nga xamante ne ni ñooy notable yi ne ci département bu Diourbel yëpp mbir mi nag nañ ko daan defee ak ren dafa wuute sëriñ bi da daan woote sas bi nga xam ne moom la sëñ Seex doon teg ci dox taxaw ci kawam waaye ren jàpp nañu ni ci suñu nangoo wax te muy loo xam ne suñu waxu bopp la mooy sëriñ bi woote xel Xelkom lay woote ndax moo fa daa jiitu moo daan njëkk a pare waaye moo fa daan mujje kon nag sëriñ baa ngi woote ñëpp di fexe ñëpp ñëw ànd ci liggéey bi nañ ko daan defee ku ñàkk jëriñu kon nag loolu moo doonoon kàddu yi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam. di xamal àddina bépp ni ñoo ngi fas yéenee door euh, door liggéey bi départ bi le 23 ci weer wi ñu nekk muy ñaar fukki fan ak ñett ci weeru octobre bii nga xamee ni si ci la ñu nekk moom jëmmi Serigne Moustapha moom Serigne Abdoul Akram nag nim ko baaxoo defee at mu jot. ñaar fukki fan ak benn ci weer wi ci la fas yéenee départ ni mu ko baaxoo demee moom itam incha allah ma ngi fas yéenee nekk daara januy wax daarul xuduus mu koy yëgal ñëpp bàyyiwul kenn liggéey bi nag at mu jot saa yu nu ko wootee bu ñu waxee liggéey faw ñu wax doomu aadama yay dem doomu aadama yay dem itam faw ñu wax oto ya nga xamee ni si moo leen di yóbbu looloo waral ñoo ngi sant mboolem ñi nga xamee ni yàgg nañoo dugal seen loxo ci oto yi ak gasoil yi oto yi yóbbu doomu aadama yi di leen delloo si waat cant googu ak ngërëm li nag ñoo ngi koy doole Serigne Touba Serigne Mountakha Mbacké mi nga xamee ni at mu jot ay wataam moo si daan jiitu ren jiiteem noonu la ko defee waat nee na ma ngi séentu ñëpp itam départ bi le 23 la ci xel Xelkom gépp moom Serigne Moustapha nag ñaar fukki fan ak benn ci weer wi lay départ daaray daaru Xudóos lay nekk liggéey bi itam ni mu ko baaxoo defee kuy xarit. di soppe di wëllëre di am di jàmm ma ngi lay sant ma ngi lay gërëm nee na du yeexal kàddoom te santul gërëmam xaritam di ko xamee si moom itam lu mu dugg mook moom ñoo ko ànd muy Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Aliou Mbacke yebal na fi rajoom ma sant mboolem organe de presse yi yëpp moo xam muy rajo di télévision di site internet ma ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di séentu ñëpp di ñaan képp ku ci téw nak wala nga jàpp ci yàlla fajj sa ajo bi barakati waqdi hawaij alladina damu fi khidmati wa hablahum maaraamu wasalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh dama jot ndigal lo xamne mi ngi jóge ci Cheikh salih mbak muy sëñ Cheikh salih waaw mom mo tok jataayam ci jamono ji nga xamne ci lama joxe ndigal <laughs> ndigal li itam mu ne moon balan koo wax eh, gaaw ni tay la won dana waxtan ak Cheikh Mouhamadul muntaha ba am ci ndigal ginnaaw <laughs> bi la ma ma kon nak mané sa ko jotli jotli gi nak mo andi dajé bi ak mbolom ndax kilifteef yi nga xam ne nii euh, moom ci lañu tënku mm, moo waral nu woowaat ñi nu gën a jege fii ci commune yi nga xam ne ñoo dend ak nun ak commune yi nga xam ne jël nañ nu waaye mbooloo dañ fay jóge ba dinu defal li nga xam ne moom lañ bëgg ca Xelkom waaye li ma sëñ bi waxoon rek mooy a biralaat mbooloo mi ginnaaw bu ma amee ndigal ci Cheikh Mamadul Muntaxa ah, wanewaat ne moom eh, ci kilifteef rek lay dox moom ci jëmmi boppam te du dañ di ci dox ci kilifteef loolee nag kilifteef ga muy dox moo war a tax mu yilifaale nu ci kilifteef googu mu waxoon ma ak ne ma mm. eh, boo demee ba yëkkati kàddu nga waxaat Sénégal gépp ne Cheikh Amar ba tey jii may may may waxeek yow jëwriñu Xelcom jooje maa ngi ko bàyyiwaat ci loxoom. xëy bu ko defee nit ñi itam. Mhm. xam ne kooku kon am na ndimbal digganteem akub sëriñam. Xelcom nag eh, dafa am Touba Xelcom Daaru Salaam. daaru Khodoos daaru Sakor daaru Mohin. Mhm. loolu boo ko xoolee dem na ci euh, euh, deux mille quatre cent hectares deux mille quatre cent hectares nag ah du du lu woyof loolu. Mhm. nga xamne ne nek nekk lenn li mi ngi daru salam lenn li mi ngi daru xuddos lenn li mi ngi tuba xelkom lenn mi ngi mi ngi daru sakor lenn mi ngi daru moyen mo waral nak sëñ bi ne naa woo mboolem kon nak na ci mang ci wo ñep di Senegal gépp muy bokki yima ma bokkal sëriñ tuubaa yëpp hmm. muy bokki dekk ndoy di bokki julit yi ndax ku ne xamna na ne Modou mi tok na xelkom ahlu kunti ñew fa alu cene ba ñëw fa ah, alu tiwaawoon ñëw fa ah, ñëw yendoog noonu ca xatax ba ci daaru xuddoos googu di sëñ Saliou sëñ Saliou wuy soog dem kon woote bi jëlut kenn xanaa ku yàlla bëggal ndimbal rek moom lay jël kon noo ngi ciy wooñe dégg ngeen sëriñ Moustapha wax ju rafet ji mu wax sëriñ Abdou Khadim moom sëriñ Cheikh Mbacké moom si na léegi ànd ak magam ak njaboot yi ak bokk yi ak yi waaye sëriñ Cheikh boo ñaanalee sëñ Muntaxa benn ak sëñ Cheikhum sëñ Saliou daanu la ñaanal junni mhm, dëgg la sagal nga sëriñ Touba waaye daggiwaat nga nu Mbakke sa sa appel bi dafa ndar képp lépp lépp ngi ci biir waaye kennal nga sëriñ Touba mu bu ne màggal nga ba mu des nga yor saw des mhm. yow nag sa des wii yaa ngi ko jëmewaat ci sëriñ Touba foofu la la mu yëpp war a fekk roy la fi ànd ko ak yow mbokk yi sëriñ Moustapha Ngoog sëriñ Mountakha ngi nii sëriñ Cheikhoum sëriñ Saliou moo woote borom ngot borom njàppandal boroom xabaan borom njul li baax di baax baax dem bàyyi ku baax moo gën boo fi bàyyee ku baax loo fi bàyyi du ràpp du raaf du réer sëriñ Saliou dem na waaye bàyyi na fi ku baax bis baa ngoog le 23 bu kenn nanki na ñëpp tàllal amin mbëkke